tali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy ci meeting bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi niki démb moom la ñu nemee ko mooy mbooloo mu bare bare bari moo daal génn ci meeting bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi doon nañu ko amal maanaam foo sànni mbàtt mu tàkk Parcelles Assainies démb ginnaaw digg bëccëg gi riira ñi nga xam ne ñooy askan wi génn nañu bu baax a baax Ousmane Sonko niki démb daan na yëkkati ay kàddu nee ñi nga xam ne ñooy xale yi bu ak Macky Sall Ousmane Sonko nee na xale yi bu ngeen pare wala ngeen wax ko maanaam ñu bàyyi Macky Sall mu def lu ko neex ci mi waaye man Ousmane Sonko pare naa ba tey ci journal bi moom jiitul Pastef nee na fi xam ne fa ñu awalee Khalifa Ababacar Sall man du ma ko nangu ndax man damay xeex Khalifa bi ñu ko woowee fi la nekk naan Sénégal état de droit waaye man duuxuma loolu man li ma wax mooy jàmmarloo ak Macky Sall Ousmane Sonko nee na jamono ji maanaam waxtaan sax jëratu ko maanaam nekk fi di dialogue loolee amutul benn njëriñ Ousmane Sonko nee na Macky Sall lenn rek moo ñu a tàqale ak moom nee na Macky Sall respecté wul kenn bu paasee njabootam moom Ousmane Sonko daat nay wax ne xeex bi nag ne leer na bu commencé amul lenn loo xam ne dina taxawal xeex bi maanaam bu ñu commencé xeex bi fekk Macky Sall jógewul ci bopp réewum Sénégal xeex bi moom du jeex Ousmane wax na ak armée bi nee na nañu jël seeni matukaay moom jiitul Pastef daat nay dànkaafu nga xam ne ñooy magistrat yi moom jiitul Pastef daat nay wax ne jamono ji maanaam na ngir xeex combat bi jaral na ko lenn lu nekk ñi nga xam ne nag ñoo fi nekk di wax ne Ousmane Sonko dafa violent loole nag maa tey amul benn yoon boo xam ne dinaa ci deltu ginaaw bu leen neexee ñu wax ne man dama violent waaye nag am na loo xam ne daal mënu ma koo nango du ma xoolee ñu may rey ak di ma tere may bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmale ñi nga xam ne ñooy waa APR ñoom nag ay tapet lañ ay poltron lañ ay ragal lañ waxi Ousmane Sonko la Ousmane Sonko nee na milice yi maanaam nervi yi Macky Sall moo leen fi andi te nag na ko ñun am nañu information bu baax a baax ci yooyu leen nervi yi te n nervi bu fi génn kenn des yéen ñëpp génn leen te moom journal bi nee fi nga xam ne fa lay jaara kenn du ko ko tànnala mooy xool fu ko neex mu jaar fa ba pare nu ko neex lay daagoo di dem moom Ousmane Sonko nee na procès public la kenn ku nek am na sañ-sañ fekke ko yéen i kaay gi de la sa Ousmane Sonko wax na ak ñi nga xam ne ay hypocrite la nee na naafiq yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di wax ne Ousmane Sonko dafa violent looy nag loolee nangu naa ko bu baax baax bu leen neexee nañu wax ne Ousmane Sonko dafa violent waaye en tout cas li am ba desaale li Khalifa Ababacar ko ci i kaay dara Ousmane Sonko nee na xeex bi su commencé tant que Macky Sall jógewul ci bopp réewum Sénégal xeex bi du jeex journal bi di Sud Quotidien nee na démonstration de force la ñu gis ni ki démb ca Parcelles Assainies ci coalition Yewwi Askan Wi mbooloo mu bare bari ni ki démb ñoo génn yéen kaay gi de la témoin xëy dañu xibaar naan ñu Yewwi Wi réussir de pari de la mobilisation maanaam mobilisation bu rëy bi nga xam ne moom la Yewwi bëggoon am nañu ci ndam ndam lu rëy ni ki ca Parcelles Assainies yéen a kaay gi de Les Échos Ousmane Sonko nee na fukki fan ak juróom benn ci àtte bi dox sama digganteeg Mame kenn koo xam ne moom may tànnal fi may jaar yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na préfet bu Ndakaaru tere nañu jaay carburant maanaam détail ci bouteille yi préfet tere na ko yéenekaay gi di Sud Quotidien ni ki démb ci rassemblement bi coalition Yewwi Askan Wi doon amala Khalifa Ababacar Sall yëkkati na fa ay kàddu nee na lu jëm ci ñetteelu candidature Macky loole du ñu ko nangu ci réew mi yéenekaay gi na ay kàddu nee na Macky dafa war a deltu ginnaaw Aminata Touré nee na lu jëm duutu amati ci Sénégal yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na marche bi nga xam ne yeewu askan wi bëgg nañu amal ca diwaanu Mbàkke autorisé nañ ko yéen kaay gi di enquête na ñi nga xam ne ñuy waa coalition askan wi ñoom pare nañ jamono ji maanaam ngir xeex Ousmane Sonko nee na du nangu Macky Sall di tànn kan mooy nekk candidat 2024 ak kan moo ko du nekk loole mënuñu ko nango te nag yi nga xam ne bëgg nañu koo amale ci 46 département yi maanaam autorisation wala ñàkk autorisation lañ ci yamale danañu na ñi nga xam ne ñooy wane nañu seen doole yéene kaay gii de la mandat nee na Ousmane Sonko dafa dem ba ci Amadou Ba nee ma nekk fa buur maanaam nekk fa roi yéene kaay gi di Vox Populi Ousmane Sonko nee bu duggee ci du ci mucc yéene kaay gi de la Quotidien wax na ñu nu leer nee na pare ngir ñu xeex ak Macky man pare na waaye nag su pare wuleen ngir ñu xeex ak Macky Sall nañu ko bàyyi Macky Sall doxal ab programme ko neexee yéene njiitul Pastef ni ki démb gendarmerie ak police ñoo ko escorté yóbbu ko ba ca mitin ba yéen kaay gi de l'info ñu koy fekk fa Aïda Mbodj nee na yéen ñi nga xam ne yéen ndaw ñi yéen la ñu dénk Ousmane Sonko Aïda Mbodj mooy wax ci journal bi nee na ndaw ñi la ñu dénk Ousmane Sonko njiitu réew mi di président Macky Sall dafa war a xam ne wàllam wéy na yéen kaay gi ñu koy fekk fa Barthélémy Dias nee na wax ju bëri ji jamono ji maanaam jërëtu ko nañu jëf Ahmed Aïdara nee na Pape Malick Ndour ragal la tapet la yéen kaay gi di nee na coalition Yewwi Askan Wi maanaam réussir nañu épisode bu njëkk bi yéenekaay gi de Le Point bàyyi mbir moomee xëy di ñu xibaar naan ñu Pape Modou Fall directeur de l'emploi daan na inauguré benn parc informatique ci daara soxna Oumy Seck ca diwaanu Porokhane ay machines yu bare bari la ñu fa daal ngir nag ndongo daara yi maanaam njàng mi ñu mën ko dugal ci xarala yu yees yi bu ñu demee tamit ba ndongo yi génn ca daara yooyee maanaam danañu mën a méngoo ak jamono ñu mën a am insertion socio professionnelle boo xam ne bu mucc ayib xëy di ñu xibaar ay faux médicaments yoo xam ne teg nañu ko loxo bi ñu ko xayma toll na ci deux cent millions waa moo ko teg loxo yéene kaay gi di direct news xëy wax ci situation économique bu Sénégal ak équipe bu FMI bi nga xam ne moo ñëwoon Sénégal ngir nag am mission boo xam ne juróom-ñetti fan la jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru mars atum 2023 ngir nag ñu def ab xayma ab évolution ci économie réewum Sénégal ci ni muy doxee waaye nag ñoom waa li nga xam ne gis nañu ko ci 2023 bi maanaam croissance bi économie réew mi maanaam dina accélérer bu baax a baax lu jëm ci wàllum inflation bi loole nag dana wàcc ci lu toll ci 5 pour cent journal bii di Stades xëy duñu xibaar naan ñu tey ji Ligue des champions Liverpool ak Real Madrid journal bi nee na ndax Liverpool dina mën a def remontada dina mën def